maa ngi lay nuyu di nuyu sama nattangoo yi nga xam ñoo nekk soo ba léegi monsieur le ministre de l'enseignement supérieur maa ngi lay nuyu di nuyu sama xarit yi nga dendal nga xamante ni ñoom ñooy bokk soo ba léegi ñu nekk assemblée bi di ci commission di nuyu ñi nga àddal ñëpp di tudd Léwo Salé mi nga xam ne suñu xarit la jamono yu mu nekkee ci Moustapha ñu àndoon nekkoon foofu noonu tey mu nekk yow mu ko xam bu baax ku mën a liggéey bi ñëw nag ci càmbar bi ci muy lu am solo ci Sénégal mu le ministre 2012 bis en ce moment ci pré ñu ngi toll tolloon 32 milliards 2012 2011 ñëw ngeen wàññi bis bi def ko 101 milliards bis topp ko jër di wax ndax dafa bari 2015 ñëw 2013 ñëw ngeen def ko 101 milliards 2018 ñëw 2014 ñëw ngeen def ko 118 milliards deux mille quinze ñëw ngeen def ko cent trente milliards deux mille seize ñëw ngeen def ko cent quarante neuf milliards deux mille dix sept ñëw ngeen def ko cent soixante deux milliards deux mille dix huit cent quatre vingt onze milliards deux mille vingt deux cent trois milliards deux mille vingt et un deux cent trente neuf milliards deux mille vingt deux deux cent cinquante huit milliards deux mille vingt trois deux cent soixante deux milliards 2024 303 milliards francs CFA lépp bokk Colobane depuis 2012 ba fi ma yafa yow mi ngi nekk 2416 milliards 814 869 743 mooy li nga xamante ni moom la def si enseignement supérieur depuis fukki at ak ñaari Macky yi may laaj nag loolu nga xamante ne mooy 2000 et quelques milliards yooyu ñu def ban impact la am tey ci situation njàng mi parce que dama jàpp nii am na ay yu bëree bëri yoo xamante ne président Macky Sall amoon na yéen a defar ko mu àgg mais malheureusement fukki at ak ñaar yi àggul le ministre Amadou Mahtar Mbow le ministre Sène Saliou jamono yi nga xamante nii depuis juróom-ñaari at ñi ngi defoon ay programme yoo xam ay ENO ay ESSEC rawatina département mais bu may waxee yow wax dëgg yàlla gisuma ko àgg man na bëgg naa xam lan mooy blocage ñaari blocage am na il faut ñu askan bi benn blocage mooy ñi ñuy jox marché yi amuñu capacité bu mën ko liggéey su boobaa état la ñuy wax fekk ci ñoom la beneen bi mooy ñi nga xamante ni tey mooy état bi contrôle bi mu war a am ci ñooñu defu ko ak sanction monsieur le ministre des finances barki démb bi ma jógee ci xalifa Saaru Murid dafa ma jot li cant ak ngërëm jëme ko ci yow université Sëñ Tuubaa bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba daaw dugal ngeen si un milliard cinq cent millions ci li nga xam moo jëm ci Pawaasu Touba Sëñ Muntaxa moo ma ko wax lu ma sëñ bi wax nag dinaa la ko àggee parce que loolu ñun nga ko defal kon nit ki bu fekkee ànduma ak yow ñëwuma commission du tax ko nu ma ñëw fii dox lu dëgg xalaatuma ko man bu ma sañoon seen nguur jeex man ma ñëw remplacer leen parce que man loolu laa gëm man may candidat di gën a baax ci kandaa yi maa yore candidat 155 maa yore candidat nekkal fi askan wi maay doomu daara bi nga xamante ni bu réew mi sensé man maa ko mën a sensé waaye nag man la ma jàpp mooy du ma ñëw ñu may wax loo xamante ni méngoowul ak li am Touba laa dëkk maa jiite woon département bi maa gagné indaale ñi fi nekkoon nag parce que bu doon toon man du nekk député monsieur le monsieur le ministre man damaa bëgg ñu sance benn système li ma bëgg ñu sensé ko ma il faut ñu waxtaan si loolu parce que tey man boo jëlee sama programme 1 cinq 5 dama jël premier acte bi ma def ko li nga xam mooy éducation culturelle formation citoyenneté parce que nit bu nekku citoyenneté du mën a maanaam mooy waral mu yàq yenn yàq yi nit da ngay nekk citoyen modèle na gëm nga mel ni Serigne Touba c'est un citoyen modèle si Ahmadou Bamba Alaaji Mali citoyen modèle Thierno Souleymane Baal citoyen modèle Omar Foutiyou Tall citoyen modèle ah ñooñu euh, euh, Maba Diakhou Ba citoyen modèle ñooñu mosu ñoo gis ñu yàq wala ñu defar yàq il faut que ñu jàngal nit ñi lan mooy citoyen modèle un citoyen modèle c'est de bon modèle nit ku baax bëgg sa réew bëgg sa askan bi def doo yàq monsieur le ministre tey boo jëlee tey jii may wax ak yow ngeen ne da ngeen bëgg a tey bu ñu attaqué woon ne dañu koy defal man maa leen njëkk attaqué yóbbu leen si yoon parce que marché yi dañu koy def gré à gré te yoon da ko tere bu ngeen bëgg a dañu ko def gré à gré yoon da ko tere diggante fii ak 2024 ubbi université xaju parce que amu leen ni moyen ñu négocier si bi si wër ma jërë ngeen